<clears throat> assalaam assalaamu aleykum wa rahmatullah chers amis waaw ah, ñu ñu may gaay yi ñu ñëw tuuti ah ñu may gaa yi ñu dugg voilà nañ leen may benn trois minutes pour ñëpp mën a dugg du noonu ndax xam naa nammeel am na comme ça ñu euh, du gudd nag waxtaan bu gàtt rek lay doon tey incha allahu rabbi waaw dañ leen namoon nag lool. gars yi maa ngi leen di ziyaare de gis naa maa ngi ngi gis ñëpp maa ngi leen di ziyaare bu baax baax a baax a baax a baax a baax gémmiñ bu yàlla sàkk nag noppiloo ko day xaw a doy waar lool yàlla rek moo ko mën a noppiloo yàllaa ko mën a wax loo yàllaa ko mën a noppiloo donc alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin voilà ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay voilà ñibbisi nañ nag ci jàmm ak salaam euh, ñibbisi nañu ci jàmm ak salaam ñibbisi naa ci jàmm ak salaam fekk njaboot ji ci jàmm ak salaam euh, ma bëgg a tàmbali déjà pour remercier sénégalais yi euh, tàmbalee ko déjà ci comité de soutien comité de soutien bi ñu taxawal fii ci Amérique euh, suñu frère maam Thierno Ndiaye jiite ko ànd ci ak ñoom Moussa Dia ak ñoom sanqara mbay ñoom Oumou maanaam ku lim sama ñees lii sax ak ñëpp daal Sali Diop ñëpp buuna suñu frère buuna Assane ñëpp vraiment euh, gis nañu seen taxawaay euh, sénégalais yi nag comme ni ma koy waxee toujours Sénégal benn famille la bu yaatu voilà vraiment am na ñu bari ñoo xam ne ndeysaan euh, taxawu nañu ci te musuñu sax jotuñu sax wax musuñu sax wax donc euh, vraiment euh, gis nañu taxawaayu sénégalais yi partout nag ci boor yëpp ci fànn yëpp borom kurus yeeg borom sijaada yi borom ñaan yi vraiment borom euh, jàpp ndimbal yi gis nañu lépp gis nañu sénégalais yi gis nañu leen de tous les bords gis nañ seen taxawaay. lii lañu doon wax démb mooy toujours rek mbooloo mooy doole bu ñu booloo rek am doole bu ñu booloo kenn du ñu man donc je pense que lii jàngat nañ ci lu baree baree baree baree baree baree bare donc muy énergie sénégalais am na nag waxtaan yu bari yu ñu war a waxtaan ndax defe naa euh, nit ñi ba léegi euh, am na ñu bari ñu réeree mbir waaye incha allahu rabbi loolu dañ koy denc ba ci ay fan fan yii ñëw incha allah comme ça bu ñu ñëwee ñu mën a gën a waxtaan ak doomu aadama yi doomu aadama yi gën a jot information yi nga xam ne ñoom ñooy information yu réel comme ni ko suñu frère journaliste Pape Alé Niang defee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yor comité de soutien bi di defee incha allahu rabbi dinañu waxtaan dinañu amal waxtaan bu am solo ci fan yi di ñëw mënuma woon bañ a wax ak yéen parce que dégg rek ne diw génn na mi ngi këram neex na waaye yéen ñi taxawoon di ko xeexal di ko ñaanal suba guddi ak ngoon dangeen ma dama leen ameel njukkal donc il fallait ma génn pour remercier leen yéen ñëpp ci sama turu famille ci sama turu soxna ak samay doom samay turu waajur wu jigéen vraiment ma ñaanal leen jàmm ñaanal ko seeni njaboot gis nañu seen taxawaay vraiment ay nit ngeen yoo xam ne yàlla rek moo am seen pay bu ma fi toogoon ba dewe nit di leen ñaanal loolu fayul seen liggéey sénégalais de tout bord won nañ ñu seen bopp te ñu nit dinañ leen delloo njukkal surtout encore fii ci diaspora bi incha allah xam naa ci ay fan yu néew rek bu ñu jokk jokkalanteek euh, comité de soutien bi dinañu def benn ndaje daal benn barbecue bu mag boo xam ne dinañ ci invité ñëpp incha allah euh, vraiment euh, maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ngeen jéggal ma nag xam naa fan yi moom dinaa jël benn écart bu ndaw rek incha allahu rabbi pour ma man leen préparer xibaar yi comme ni mu waree voilà comme nag ñun ay sénégalais lañu comme ni ñu koy waxee toujours jàpp ñu dara ci xol yi ñun baale nañu ci xol yu sedd guy lu la doomu aadama mën a def ci àdduna bi jéggal nga ko ci xol bu sedd guy ndax yàlla njéggale la laaj donc ñun combat moo ñu tax a jóg te combat boobu ñu tax a jóg pour libérer Sénégal la te incha allahu rabbi dara duñ ci delloo ginnaaw bu soobee yàlla waaw ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax message yi information yi ngeen di dégg yu baree bare baree bare di jóge fu ne ci àdduna bi voilà ay doomu aadama yuy wax lu leen wóor ak lu leen wóorul ku nekk ngi wax waaye li wóor mooy Ousmane Tounkara mi ngi këram maa ngi si jàmm ak salaam Amérique delloo na ma sama àq ak sama yelleef am nañu ndam dara topp ma dara toppewuñ ma dara donc loolu pour mu leer doomu sénégalais yi ngeen am ko incha allahu rabbi muy information bu réel boo xam ne man ngeen koo jëfandikoo incha allah euh, comme ni ma leen ko waxee nag di ngeen ma jéggal incha allah fan yi ma jël tuuti recul vraiment jox njaboot ji tamit seen àq ak seen yelleef parce que comme gëj naa fi incha allah donc vraiment bëgg naa passer benn moment ak famille bi incha allahu rabbi bu bu ci yàlla àndee dina am nañu waxtaan yu bari yu ñu war a waxtaane voilà am nañu waxtaan yu bari ñu war a waxtaane incha allahu rabbi euh, ni mbir mi tëddee ni mbir mi fi mbir mi jaar ak fi mbir mi toll ak komba bi nga xam ne moom la ñuy xeexal Sénégal fi combat bi toll euh, dégg naa suñu euh, kilifa gi moom moom mi ngi ci ay jëndum roppalaan moom nekkul ci toppatoo xiif Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la sénégalais yi di dund moom mi ngi ci ay jëndum avion ak ay préparation au troisième mandat fii nag comme niñ ko waxee kekk la nen du fi bonde comme ni ñu koy waxee toujours fii kekk la nen du fi bonde donc maintenant les souris euh, war ngeen mën a delluwaat ci seen i ay pax te xam ne muus mi ñëw na donc jinax yi delluwaat leen ci seen i ay pax te ngeen yaru te ngeen xam ne lii incha allahu rabbi xeexu senegal la maa ngi jaajëfal sénégalais yépp maa ngi leen di jaajëfal vraiment euh, awma seen pay amuñu seen pay yàlla rek a am seen pay man awma seen pay waaye vraiment jaa jëf ñu ngi leen di remercier ñu ngi leen di remercier ci seen taxawaay maa ngi leen di remercier sama famille mi ngi leen di remercier vraiment bëgg nañu ngeen xam ne euh, we we we will be forever grateful maanaam duñ leen fàtte ci ay ñaan duñ leen fàtte vraiment gis nañu taxawaay bi nga xam ne moom ngeen ñu taxaw gis nañu taxawaay bi nga xam ne moom ngeen taxawu sama famille gis naa ko gis naa taxawaay bi ngeen taxaw samay doom gis naa taxawaay bi ngeen taxaw sama soxna gis naa taxawaayu sénégalais yi de tout bord pour vous dire benn histoire bi ma gën a laa touché benn maire euh, bu baax muy yaay ci man boo xam ne mosuma koo gis musuma koo xam bu euh, yoon bu njëkk bi ñuy am ate bi dafa yëkkati ñaar fukki dollar jox ko nit yóbbante ko ci sama jabar ne ko tànkam dafa diis waaye bu demee mu joxal ko ko sama jabar du alal bi mais geste bi bi mu jógee ci loolu ñaareelu yoon bi nga xam ne dañuy def atte maire bi di dem ci atte bi mu daanu bopp bi toj mu nekk hôpital donc fas naa yéene dem seeti ko ci fan yi di ñëw dem seeti aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu taxaw ci xeex bi yépp ñu dem delloo leen njukkal fas lañ koo yéene incha allahu rabbi fas naa yéene tukki jël sama temps dem seeti leen benn par benn fi ngeen nekk incha allah rabbi ñu waxtaanee Sénégal bu ci yàlla àndee wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë leen jëf